yoon day dugal tànk di dugal bopp day teg dënn dugal maam bu naree compliqué sax bal bu naree romb rii maam bi <laughs> mu dul dem leen toos waaw salaamaaleykum yi maa ngi leen nuyu ah. Aba comme ni ma la ko waxee woon démb rek yaa ngi naan jaru woon yéeg da ñëw pour baalu waaw yaa ngi te dem mais pour man jar na ko quoi parce que ñu Sénégal humour la ñu xam quoi la fois passée dama fi ñëw pour le sens de l'humour pour foo ak nit ñi pour kaf. kenn pour le sens de l'humour moo la fi indi woon la fois passée mais kenn kontaanul. mu am ñu métti. waaw parce que da dugg ci vie privée nit ñi. defuñu ko parce que dañoo bëgg dugg seen vie privée wala loolu. mais dañ koo def pour kaf reetaan mais bu fekkee dafa am ñu métti dafa am ñoo xam dama touché seen sensibilité maa ngi jéggalu ñëpp. su ma la bàyyi woon ci accident wu yaa aw bi nga jëm. voilà ah, waaw si si si si maa la freiné la fois passée bëggatuñu fi loolu bëggatuñu fi loolu. bëggatuñu fi loolu. démb dama dajeeg ah. démb dama dajeeg Oustaz Modou Fall mu ñëw wax ma lu am solo mu ne ma moom li ma ko wax mettiwu ko mais am na loo xamante ne du yëfu jullit wala genre yooyu noonu quoi man jullit laa. tooñ moo baaxul. man mun naa def comédie ba mu jeex te du tudd turu kenn. ah waaw quand loolu la ñuy xam ci mais su ko defee c'est pour le sens de l'humour. le sens de l'humour mooy la damay jéggalu ñëpp képp koo xamante ni métti na la delluwaat waaw garaawul mais képp koo xam ne métti na la maa ngi jégalu di wax ngeen jégal ma bu baax a baax a baax a baax a baax a baax maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp fekk sant yàlla de ba dañ la doon wër pour news la maa ngi ñaan njëkk de garaaw garaaw day tey dama ñëw pour toog utal leen ma ko seize fii mu toog nii alma seize bi ah, al ko seize bi di jël seize bi nga toog seetaan ñun ñun lii lañ bëgg tos bii buñ la woowee nga ñëw joué nga ñëw joué buñ la woow nga toog réglé ñun bii tos lañ bëgg bu sage réglé jàpp njàmburam et puis yaa ngi sañse boo goos jàpp sa njàmbur lii daf la jàpp mais waxuñu sew dugg ci ay cas yi li ma leer mooy page yooyu di am ay cas ñuy wax ay vie privée jàmbur xale jigéen yëpp ci lañ nekk man moom xam naa ne man ngeen gën a yàpp heure bu ne ngeen dugal man sama vie privée moom man def ngeen ko vie publique rek aba ah voilà site internet bi nañu xool nu ñuy pose question nit waaw ah. yow Papa Boy Djiné bu dee ba mu takkee Ndeye Gueye ba léegi amul victoire loolu lii loolu lu ci bougé nit Ndeye Gueye mooy maye ndam Ndeye Gueye mooy maye ndam lu ñu waxee ngeen wax wax yu sew yi te fekk na site internet yi ñoo du xool bu doon maye ndam te Papa Boy Djiné roi des arènes lay doon tos ñu koo laaj man du man ñoom site internet yi nañu xool lu ñu posé nit question ah tey jii farata yàlla du la wax ça rien à voir ak victoire question da ngay xool nu mu gën rafetee nga posé ko nit. ok ok combat booy gis ne combat mbir ñëw yàlla na ko yàlla may ndam. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin affaire yi wax dëgg nga waxee xol moom. non euh, de cœur moom. lii moom ñëpp ko bëgg parce que bi kan la lan la bind. waaw xoolal booy bulli bulli ma message waaw tos bulli maa ko ñaan. yow maa la ko. yow jëy naa Balde bu sàccee. portable bi bul mu def mu déposé plainte. enquête ñu def plainte contre X ñu enquête ba xam ne jëy naa Balde moo ko sàcc. mu ne baal na ko retiré na plainte am ñoom ñaar ñu def émission. jéegaloonte baalante ak tayaa tax lan la ci. toog ay police ay police def ci amoon yoon eh, kan moo posé question bi. booy ku bëgg ku la jàllale information affaire seytaane man nekkuma ci. waaw gars yi arrêté leen seen question yi waay arrêté leen li waay eh, arrêté leen kii toog bi pour loolu. arrêté leen li waay bu toog pour affaire seytaane affaire bii bu ngoonee man dama teel. Eh, eh, ku ci yor question bi posé yor nga ci numéro bàyyi nga envoyé ko mu jàllale la information. day réew quoi. toog bëgg sérieux ngeen non li ñu bëgg ay wax yu sew. waaw ah, ah. mais yow tam. waaw li ñu bëgg ay wax yu sew. GPS bi tas bu dugg GPS bi. yow xoolal yow yow yow yow lamb lan lañ ko xamee woon muy bëre bàqu bëre entraîné ba ni ñàbb boo amee sa adversaire nga xaar ko fa lafan nga jàkkaaroo nga wax ko waaw Balla Gaye bu indiwul forme la ma joon Modou Lo eh. loolu bu ñëw ba orax lan mooy ci yoonam lan mooy ci yoonam Modou Lo yow lan yoonam yow yaa Balla Gaye ennemi juré depuis dix ans looy wax loolu bu waxee loolu génn def fekkee tamit am na lu ko man. Papa bu parcelle. waaw bi muy bëree ak yéen seen mbër mi bi dëkk jàmm kan moo ko xaañoon du yéen. ñun waa jàmm gën yéen a ko. Eh, eh ñun jaawale histoire yi. Baye moo saaga Gris Bordeaux. Eh! Baye Ndiaye saa Gris Bordeaux. Baye Ndiaye sama xarit la tos tos. Baye Ndiaye tamit bëgg naa la ko jëm sama famille on touche pas la famille on touche pas. Baye Ndiaye waru may nit ñi li ñuy waxee wax yu sew yow sa mbër daan na nga daw kottu Balla Gaye jubile doo romb Gris Bordeaux def yow wala nga félicité ko taxaw naa ko xamoo nga ni mais da ngaa xam lan mooy seen problème. yow loolu day may nit ñi pour ñu wax ci ay wax yu sew am na nit ñi maîtriser problème mais ku nekk da ciy dugal ay kàddoom. waaw mais da ngaa xam lan mooy seen problème booy def fii di wax ay affaire gel ñii naan kii daan nangu gelu kii ay kii da ko yoroon xaalis oto ay kii yoroon loolu wax yu sew yooyu noonu pour lan boo ma déggaatee ma wax man boo ma déggaatee ma wax. waa Fass dañoo war a noppi ñoom. Eh, dugg na Fass. non non non dafa nànk kenn du ngemb sa mbër. yow yaa ngemb sa mbër. indi ko mu bëree daan. yow yaa war a nekk première personne boo xam yaa koy encouragé. tëggkatu jëri bu war yi waa Fass waa Sène taxaw. naan na tekki ngembam par force. jiri buur ba pare nag keneen ku bàq nan ko tatak tak jiri tatak tak bordeaux bi mooy sa dernière bi mooy sa dernière sanction katak ku tak katak ku tak ay Bordeaux katak ku ay eh, bi mooy sa dernière bi mooy sa dernière maa maa bàq bu neex lañ ko tëggal nag Aba Giri Bordeaux ma Giri Giri mi Balla Gaye dal waaw moom jëlaat na combat moo jël waaw dernière chance rek Ama Baldé dernière chance rek day ñëw Giri Bordeaux nag du ragal de Ama Baldé la jël <laughs> lamb ji nag neex na Giri Bordeaux nee na moom moo jëlaat euh, avance su Ama Baldé. mais abaa ku neex. Batika. abaa Batika neex na. yow ancien mbër bëreetoo amatoo victoire bàyyi nga. Batika ñu laaj ko moom mu ne sariya lay ate sariya. sariya ak làmb ñu laaj ko ci forme yi mu ne moom bu fekkee sariya rek lay waxal. bu dee sariya rek lay waxal. Balla Gaye ak kenn dul forme. <laughs> waaye nag nañuy waxtaan de mais bu fekkee sariya loolu la bu fekkee sariya dëgg dëgg dëgg dëgg sariya dafa ne ku fen dañ lay duma bu dee sariya loolu la ku fen dañ lay duma abaa benn forme ñëwul <laughs> non bu dee sariya rek la ñuy waxal. bu dee sariya kaka kaka kaka baax ah, benn forme ah, xam nga. xam nga man lii dina tax ma bañ làmb ji ay waxu sew dina tax ma bañ làmb ji parce que man li tax bëgguma dugg ci politique. koo faral keneen keneen noo nam nga laal politique moo tax. abaa bëgguma wax ci politique. abaa balaa ngaa laal politique làmb ji am na ay problème ba tey de yaa ngi naan làmb amul problème mais am na problème si ba ci pompe à duggee la làmb am problème. te te te te. abaa buusi te réew nga. mais yow tamit. mais mais man man xaw guy gi moo manqué. waaw mais tos tos loolu arrangé nañ ko jeex na. buusi yow nee guy gi muy kilifaam guy gi muy kilifaam. nga ama problème guy gi ootal ko ba ci face à face bi indaale sa propagande jàpp bëtu guy gi propagande ba mu kii ko yóotu ba mu nga dof dafa nduróog réew mais bokkul. ah mais baal na ko guy gi. boo réewee mun ngaa def yëfu dof ba war a am peenu dof. mais di nga ko régler ba doo def penu dof bi du la dal bu si bi yëpp moo ko organisé. waaw mais dafa bëgg jàmm. waaw ah, bu deful guy gi ñuus ko ba pare. waaw non non tos loolu jeex na foofu amatul histoire am na jàmm. ndax ah, abaaxal yaay guy gi yaay guy guy guy eh, rek li li buusi rek jooyal. laay waxaat li tax may bañ làmb ji ci kii lay jógee parce que moo tax bugguma politique politique wax ju sew boo faralee kii kee saaga la nga faral kii ñu ne la yow nga aba en de politique waaw aba Marème Faye Sall bëgg na boobu pour eh! eh! première fois bu bëgg na ambiance eh! aba non non masla ku jal ku kat moom loolu la mënul moom loolu la mënul moom. Marème Faye kàccar kàccar mu jub. mais wuy ma wuy ma. aywa abaa tos wax non non waay non non waay. waay tos non non waay moo tax Marème Faye. Marème Faye il est temps ñu wutal ko xew national. xew mu mag. parce que quoi qu'on puisse dire. abaa dama ñëw dama lay wax. ah mais tos non non bu def sama tur bi de. non quoi qu'on puisse dire. filtre leen ma filtre leen ma. voilà Marème Faye quoi qu'on puisse dire ñun li Sénégalais li ñu bëgg. politique ma mais franchement parler fondation Servir le Sénégal. bu feebar mu faj la quand même quand même. mu ngi dimbali néegu doole yi. quand même tàccu la ñun yi. quand même ñu bëgg moom bi quand même quand même. la. teraanga mooy dëgg mooy dëgg. moom mu ngi ñuy defal lu ñu bëgg. fi nga nekk baax na de. il est temps ñun. ah ñu defal ko moom li mu bëgg. yaay Amadou. ambiance la bëgg. yaay xam nañ ko créer xew international. yaay Ibrahima lii laa bëgg de. pourquoi pas prix di takk mais Abba imaginez jeudi jeudi jeudi xoolal Abba xoolal alxames un bon jeudi un bon jeudi gars tey férié la Sénégal kenn du liggéey lu xew ñu ne président mooy takk soxna amuñu Sénégal dañoo tam président bu ñëw da nga indaale jabaram mosu ñoo fekkee wenn xew président il est temps ñu moytu loolu nañu am suñu xew président xëy rek ñu ne tey la jeudi tey la président di jël ñaareel gars yi def grand mbubu vert jaune rouge abbaye génn marinière yi xaftaan yi dëkk bi yëpp vert jaune rouge mu mel ni Sénégal jël na coupe du monde palais di riir xaw ma bongo maan yu nooyi xaw ma bongo maan yu nooyee koy tëgg xaw ma bongo maan yu dëgëree koy tëgg mais imagine rek Marème Faye Sall ñu wàccee ko eh, kan moo coupé noonu bàyyi bàyyi leen def imagine Marème Faye Sall ñu wàcceel ko raxam mu uuf ko. prix di toog bàyyi ma waay yow tamit bàyyi ma waay yow tamit. xaalis taa ñëw xaalis taa ñëw. tiim ñaareel bi. naan ko prix di lu mu la jaar. nga daal aju nee ne. ay aju baaba. ay ay ay ay ay jaa jaa. Eh. waaw waaw loolu ñoo neex de. Eh. Eh, ñaareel boobu yàlla bu mu génn jàmm. non ñaareel boobu yàlla bu mu génn jàmm gën. après nga wax ñaareel boobu. non yàlla bu mu génn jàmm loolu banlieue mooy am ndam. eh imagineel ma toog sama gars yi naa leen tey président mooy ay suñu koñ. <laughs> motaar yi tàq. ambulance yi escorte bi. gars yi jiw ko ci bunt mu def jàllaabe. yow eh tos. boobu maa ni naan ko président lu mu la jaara. gannaaw ay papa. way laissez maman. ay président na xew ma wax la. lii yow moom mooy. président bu demoon bay takk ñaareel. waaw dina bàyyi ville di ñëw ba saa jàmm yow wér nga. ah, ah. mu neexee. ah ville ah waaw. ah mais jàmm ah, dem loolu nag. ah waaye wér nga ah, nga te yéen lii def yéen yi def leen a neex. lan moo tax ku ci am sa yëf dencal ko sa bopp bu ñuy wax ay waxu keneen mu neex la. ku ci sàmm ci ñun wala nga entraîné ba cee da ngay sinap sa bopp denc sinapu keneen bu ne dung bu ñëwee nga jàllale. ñoo hypocrite ñun laaj ñoo foo yàlla na yàlla sàmm ñu ay su ñu ngi maa ngi lay kontaane bu baax merci d'être venu tiktokos bu mag bi ay su ñu ngi ñu ngi lay kontaane bu baax xale bu rafet bi dëkk Thiès léegi fi ñu toll nii bi xat na cool yi